ku ci bëgg jot sama jikko na sa loxo dugg ci ñam bi te sëñ bi ñëwul. Cogoy lii lan yow amo dara loy wax yow amo dara lo mu wax di yabal major mi nga xamne dafa waye de lan la xam ci dëkk bi ba jël sëñ bi bu dur sama ajaam yow. gisagu leen dara na paate laal beñe bi laal ko. way yow xalé yi ñun dogul nañ bo sama yor ci xalé yi dama nekk fatu bu ma yëngal dé na sa loxo dugg ci ñam bi laal beñe bi dur é eh, jogol jogol jogol jogol dur jogol jogol taxaw